xam ñu ko mënti tuddee boo ko tegee teg ci baykat teg ci jaaykat teg ci ferrailleur teg ci law ba bay jaay fer toog ci teg beneen intellectuel loolu lañ tudd ñun liste parité donc ci loolu moom la ñuy moom la ñuy liggéey mais lu jëm également ci assemblée nationale ñu wax ni d'abord nañu wàññi nombre de députés jàpp nañ ne bari na pour ñun juróom-ñeent fukki député ci Sénégal ak fukk yu nekk ci bitim réew doy na. muy benn ñu jàpp ne dañu leen war a fal au niveau de la base. salaire yu député dañ ko war dindi parce que tegul fenn dindi ko remplacer ko par ay indemnité de session donc loolu mooy gis-gis bi nga xam ne ñun moom lañ am par rapport aux élections législatives xam nga xam nga réew mi li ko yàq ku ne da ngay def li la neex te bëggoo keneen def li ko neex ñun nag yàlla suuturaal nañu ba li ñu xalaat muy suñu position dañ koy affirmer ku ci kontaan baax na ku ci kontaanul baax na li li ci am solo pour ñun mooy li ñuy wax nañu gëm ni dëgg la mën nañ juum nag ah, ay doomu aadama lañu. mais bu ñu juumee danañ nangu ni juum nañ ensuite ba ñu taxawee di wax ne Karim Wade nañ ko may grace nañ ko na ko président gracier gracier attaqué nañ ñu wax lu nekk tey ci loolu lañ mujj parce que koo nga xam ne arrêté nañ la jugé nañ la condamné la cour suprême confirmé ko xam nga kuy taxaw di wax naan buñ ko gracier ku bëggul mu génn bari nañ ci nañ ñoo nga xam ni coow la ñuy coow nii rek mais bëgguñu Karim génn parce que seen agenda wu bopp lañ yore am na koo nga xam ne jàpp na ne bu Karim génnee du ma mën a jiite parti te bëgg naa jiite parti am na koo nga xam jàpp na ne bu Karim génnee du nekk candidat te xëy na xalaatoon na ne bu Karim génnul bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga ñu ni bon comme diw moo fi sës nañ ko jël def ko candidat am na koo nga xam ni xëy na am na Karim ay problème am na baayu Karim ay problème yàq nañ alalu baayam jaay nañu ay teereem jaay nañu ay këram dara desatu fa yaakaar nañ ni aussi bu Karim génnee réglé loolu. bu la woowee ni la kaay jàppal ma fu mu mën xoolal ma a loolu mooy njariñu Sénégal ma dem.